président ci suba lan ngeen waxante. Ah, bu dee lu ñu mën a wax. ah déedéet mais mën na nekk sur des questions d' intérêt national. déedéet mën na nekk ci lu yitteel loo xam ne man mën naa ko xam ak samay morom. déedéet hmm. man mosuma am problème bu mel noonu ak président de la république euh, xam nga man dama ànd ak Macky liggéey euh, bi may liggéey dama jàppoon ne président dafa soxla woon loxo yu set. bis nit ñëw bi mu ma nommé PUDC nit ñëw guddi seet si ma mu ne ma damay waxtaan ak président mu wax ma lii ci yow ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne ma góorgóorlu euh, bi ma waxee loolu ma jàpp ne kon PUDC bi te président dafa ni ma ci boppam li mën naa ko wax fii dafa ni ma dama lay dénk Souleymane dénkuma la n'importe quoi su ma gëmul woon sa talent su ma gëmul woon sa engagement su ma amul woon ci ci yow confiance duma la ko jox mu ne ma programme yi ngay dégg ay yoonu yokkute man naa ne ñeneen a ko bind mu ne ma waaye bii man la mu ne ma joxuma la n'importe quel programme dama la jox programme bu may falaat ñuy dem élection ma def PUDC ba am village yoo xam ne ay chef de village ay maire dañ ma doon woo ma ak li ngeen fi def ñun mënuñoo continuer di contre Macky Sall boo jëlee carte fi ñu demul PUDC fi PUDC demul ci Sénégal mooy carte fi ñu perdre à la présidentielle mën nga koo superposer président di dem élection mu woo defal ma décret man kott le président Macky Sall defal décret ci élection yi comme son mandataire man kot ma ànd ak moom campagne liggéeyal ko liggéeyal ko jaamu ko tarbiyu ko ñu pare 19 heures 30 avant 20 heures la ma premier ministre woo ne ma Souleymane nii nii nii nii ma ne ko premier ministre mu ne ma ma ne ko bul àggale ma ne ko bul àggale makki Sall nee ko defal na ma lu luy tax ma jàpp ko ba faw abadan dootuma ko bàyyi. parce que Macky daf la porte contre tout le monde ah. il m'a pas porté contre tout le monde. si. Euh, non. si xam nga tax xam nga tax ma ne. non Macky daf la en tout cas Macky daf la porter et daf ko assume xaaral non avant xaaral. Euh, dem na fu gën a am na fu gën a sori sax maag président foo xam ni du ma du ma fa yegg président dafa sori ci man. saa yu mu demee ba gis ne que c'est tendu c'est difficile daf may woo tukkee ak man ñu wéet man moom ak yàlla mu wax ak man bu sam toll na jamono yoo xam ne c'était dur pour moi parce que sama yaay daf feebar ma ki souteniruma rek soutien matériel wala dara daf mu soutenir moralement moo tax ma wax moo xam ne ko man bokk ci gouvernement ñàkk bokk ci gouvernement. Mohamed ban Mohamed Dionne. ok ak leneen ak leneen parce que nag am na yu ci xew yoo xam ne ay détails la du ma ci dugg. si vous en parlez c'est que. maa ngi doon maa ngi doon xaar leneen lu dul bañ a bokk ci gouvernement bi. ah bon waaw lu sax. parce que dafa am lu ñu dafa am yoo xam ne jot na cee waxante jot cee jaar xam nga koo xam ne pendant vingt-trois jours. da ngeen di yenn di nee nay nekk ensemble ba deux heures du matin ngeen dem tëddi yeewu nekkaat neuf heures ba deux heures du matin dafa am yu muy créer ay liens yu muy créer te képp kuy sénégale nga xool campagne bi xam nga sama liggéey nangu nga ko sama sœur Mimi Touré ma wax ko bi ñu ñëwee dafa ne heureusement qu'il y avait avec nous te Mimi du ko ma seexal lem muy wax dama liggéeyal président bi ma affecté dafa am mission bu ma assigné bi may affecté. c'était quoi. soxloolu ma di ci ñëw mais daf ma affecté woon mission mais bu ñu yegsee ci peron bi dafa am lu ma wax lu ma touché dafa ne ma su demee Souleymane boo demee Paris ma ne ko ah, mu ne ma li ngay njëkk a def indil sa yaay foofu nga faj ko mais ku la defal loolu au fait euh, moo tax bi mu nee du dem ma ñëw ne ko président man dama bëgg bàyyi liggéeyal la gratuitement